pour vous aider à réaliser vos rêves. Digital Store vous propose sa nouvelle gamme de smartphones et tablettes sur Android les derniers sur le marché digital. La tablette Core T4, le smartphone Core X4 et le téléphone flottant Shark X3 sont des outils qui vont transformer votre quotidien. Dotés d'une autonomie suffisante, résistant aux chocs, étanches dans l'eau, ces produits vous accompagnent dans toutes vos activités professionnelles hors de votre bureau. Core très performant d'une très grande résistance, éprouvé aux normes militaires IP68 et doté d'une alarme en cas de danger. L'entreprise Crosscall est le seul qui propose une garantie sur 3 ans. Contactez-nous vite dans nos boutiques showroom avenue Bourguiba et à Sébédioune sur la Corniche Digital Store, améliorez votre quotidien. ci fii ci Touba dëkk bu sell bi euh, ci sunuy activité de ministère de transport pour indi ay oto yu bees yu ñu war a jox chauffeur Touba yi oto yi ñu ngi toll ci cinquante oto euh, ñu ngi xaar cent cinquante oto de plus d'ici décembre janvier deux mille vingt et pour que Touba nag mun a am transport bu mucc ayib comme ni ko Dakar amee te loolu président def ci joxe woon digal déjà depuis deux mille quinze ne nañu def de telle sorte que oto yi am ci biir dakaar dañu ñu tuddee leen car aftu ñu góorgóorlu ba car yooyu aussi mën a am ci beneen yeneen région wu moo tax déjà ci loolu depuis 2015 dugal nañu 550 euh, car yoo xam ne dañ ko dugal ci région Sénégal yi Touba am ci 150 donc Touba moo ci ëppale loolu moo tax ñu yàpp na Touba dañu war a gën a dugal suñu loxo bu baax ci transport bi gën ko organiser andi leen ay kaar yu mucc ayib indi leen aussi ay sept places yu mucc ayib ba nga xam ne dem beeg dikk bi daal dina jàppandal nekk ci confort nekk ci sécurité nekk aussi ci performance. loolu moo ñu indi woon waaye xam nga comme dañu ñëw nag ci waxtu màggal ah faw ñu ñëw nag ziyaare sëñ bi ziyaare nañu ko mu ñaanal ñu ah, ñëw tamit ci porte parole am ah, sëriñ Bassirou ah, Bassirou Abdoul moom it mu ñaanal ñu dalal ñu occasion la ko ay masque parce que sëñ Mountakha dafa ne kuy ñëw na nga masqué wu te comme moo boote ñëpp njaboote ñëpp nag faaw ñu jàppale ko ci loolu ba nga xam ne prescription boobu ñëpp dinañ mën a sàmmanteeg moom moo tax jox nañ ko benn loo vingt cinq mille masques ak ay gel aussi jox nañ ko defe naa deux cent paquetu gel pour que loolu nit ñi ñëw mën a sàmmonte ak prescription yi nga xam ne ministère de la santé dégle ne ko waaye aussi ministère du transport digale ne nag ci code de la route aussi ñu sàmmonte ak ak ak yelleefu doomu aadama yi sàmmoonte aussi ak code de la bi nga xam ne dafa prescrire ni ñuy dawee ci tali ñii dawee ci tali nag ñëpp xam nañ ko xam nañ ne booy daw da nga war a def ndànk def attention waroo gëmmentu waroo naan sinébar waroo andi loo xam ne day yàq sa concentration ci yoon bi ñi ñuy yëpp ay doomu aadama lañ te doomu aadama dafa war a jàppee boppam bu dee jullit la que ne yeneen doomu aadama yi alalam la moo leen war a sàmm kon ñu dem ci jàmm ñëw si jàmm sëñ bi na def nañ ci ñaan te am nañ ci yaakaar waaye nag biñ la ñaanalee ba pare na da ngay fagarul sa bopp góor góorgóorlul sa bopp ba nga xam ne ñaan woowu dana nangu góor góorlu bi nag mooy booy dugg sa oto nga xam oto bi li mu man nga teg ko ko moytu di njëkkante di wut ay dépense di wut xaalis ba kenn doomu aadama mu ëpp xaalis kenn mënu ko fay kon loolu la ñu wax ak ñoom wax nañ leen ko fële ci gaaru ceer bi fekk na sëñ bi digal leen loolu parce que nag kuy ñëw Touba da ngay ñëw si dëkk bu sell dangay ñëw aussi pour jaamu yàlla jaamu yàlla nag li mu àndal mooy dal li mu àndal mooy tolérance li mu àndal mooy muñ li mu àndal mooy teg sa tànk ci yoon yaa xam nag ci yoonu diine la yaa xam ci yoonu àddina la yoonu àddina bii nag mooy code de la route moom moo digle nan la ñuy utiliser oto yi te chauffeur si jox nañ leen permis mooy xam nañ kon ni koy defee sàmmonteeg moom nag moo fi des ba xam màggal gi dinañ ci dugg si jàmm